nataal fanweer ak ñeent ñépp mën nañoo daanu feebar bi yeesu nekkee ci kaw suuf indil nañ ko benn góor bu mënuta woon dox bi ko yéesu gisee mu ne ko góor say bàkkaar far nañu leen lan samay bàkkaar ndaxte nit kooku ay jafe-jafe tànk la amoon yéesu xamoon na ko bu baax waaye dafa xam ci boppam ne bàkkaar reenam ci xol la nekk te moo gën a doy waar feebaru yaram ci loolu yéesu ne kooku la fa ñoom jógal te dox jëlal sa lal te demal ñibbi sa kër nit kooku jóg lem basangam bokk ko te wey di ñibbi kooku amoon na wër ci yaramam muy ci ay tànkam yi la fa ñoon ba pare jot baalum bàkkaar ndaxte yeesooy yàlla moo tax mu mën koo def yéesu mën na wëral ba tey mën na ko def jaarale ko ci ay doktoor wala ci ay garab buñ ci wëree yéesu lañu war a gërëm te buñ ci wërewul mën nañoo dimbale tamit ñuy am mbég saa su nekk ci suñu biir xol def leen ndànk gaayi kirist warul nangu fajub xërëmkat moo tax danga war a am yaakaar ci yéesu ak sa bépp xol ci lépp te ci say ñaan del wax saa su nekk na am li mu bëgg waaye déedéet li ma bëgg